saraax la ñuy def ci xew xew lamb tey fekk fa combat Siteu ak Papa Sow di 5 avril bi ñu dëgmal le journal sunu lamb xëy bind mooy le combat de la peur diggante Siteu ak Papa Sow mooy le combat de la peur ñaari mbër yépp ku ci nekk am na looy ragal ci bile combat ba journal bi xëyee jàkkaarloog Siteu da koo joxar bi baaraam ni Siteu joue sa survie Siteu bile combat mooy sànni tàccoom day am ndam des ci lamb ji mottali ay naalam lu ko mooy bu amee défaite mu nga ca biir saaku ya ba mu jubloo ca Papa Sow dafa ne Papa Sow en danger après son exclusion de face Papa visé ci bile combat bu a mu nekkoon ci làmb loolee moo waral sunu làmb xëy ne le combat de la ne gagner pour ne pas sombrer nu jàllee ci Cheikh Super Jamono ma combat ba avorté woon digganteem ak Mori Cargo bu sàkkoo xam-xam ci arène nationale moom Cheikh Super Jamono am na beneen combat le 4 avril la fas yéene jàkkaarloog deux ziga ci combat bu rëy moom Cheikh Super Jamono digganteem ak Mori Cargo le 1 janvier la woon 2020 ba dafa avorté woon mujj la am moom Cheikh Super jamono ba muy génn këram la jam boppam ay béjjén ba amee indisponibilité mënatu da bëre ñu jox Mori Cargo Victoire CNG génnaat ci ab PV cassé verdict ba teewut l'espoir de l'école de l'île Mor Fadam moom nekk ci ab ruqam di liggéey ba mujjee am benn combat digganteem ak 2 ban promoteur mooy monté bi le di ab revanche loole le journal ba di laaj quel promoteur pour organiser la revanche Lac de Guiers woon ca stade Iba Mar ca gazon synthétique ba la Lac de Guiers 2 ans après l'heure de la revanche a-t-elle la journal ba xamle gannaaw fukki ak ñett ci ren ba ñu bëree ba léegi est-ce dana laaj revanche am en ñaari mbëri ku ci nekk pare nga ngir am combat buy des kay ci promoteur lay dese waaye du ci Tapha du ci Lac de bu nu jàllee ca lit sans frappe ba ca ñaaxaar foofee loxo dem na gémmeñ ca feeñ ca 10 ya dafa jaaxal gars yi jël mise ba dem Iba Mar Diop fekk promoteur ya dajaloo tëgg seenu galaa jëlaat mise ba jóge fa dem ca Mbuur ca 3 millions Yaxya Diop Yékini koy jël keroog ca ñaaxaar ba mu taseeg Serigne Ndiaye de Serigne Ndiaye da man kenn du daan ñaari yoon ku ma dóor yet wi da pare alma ma fayu waaye ordinateur moom it kenn du xëccoog moom àll bi moom ordinateur moo éliminé Isine Doole éliminé Boy Faye éliminé 2020 foofee Kaw Cissé 2 bu Dalifor moo imposé wu ci kanamu Concorde ci 33 secondes la ko Kaw Cissé 2 won boppam jéggi ko jàll ñu xëy ca dimanche ba caatu Yoff won boppam Bébé Diouldé moom it ci 4 minutes 47 secondes la ko daan jël bu rëy bu dee moom Abdou bu waalo mu nga ca Canada nee lu rëy lay waajal Gris moom Abdou xamle na ne ñetti weer lay def ca Canada liggéey la mu war a liggéey bu ñëwee indil Gris 2 lu metti ka bëgg combat bu metti mooy Baba Diaw diggante Sa Thiès ak taxawal moom ci am production bi le combat moo ko intéressé diggante Sa Thiès ak Garga bëgg na Modou Anta ak wala Diène Kairé Moussa Ndoye ñetti combat yi bu mu ci am jël jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci tu yéenekaay bi ñu leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah